libération ñëw ci mbir moo xam ne ñu ne mu nga xaw fële ca euh, Rufisque ñu ne nag ab sëriñu tariyax daal as ndaw su ñëwoon ca moom di ko wax mu ñaanal ko ngir mu am jëkkër ñu ne nag daf ko drogué euh, ba pare euh, violé ko moom sax kon mu ngi ca loxoy yoon ñëwaat nañ itam ci ab mbir bu ñeel Rose Wardini mi nga xam ne nag ñu ne dañoo saisir ay kon kontam wante itam euh, hypothéqué ab immeuble boo xam ne mu ngi nekk fële ci corniche ba li ko waral nag ñu ne mooy moom moom la di Rose Wardini daal euh, dafa yoreel ay koppar euh, ci lu toll ci trois cent quarante et un millions quatre cent quatre vingt trois mille trois cent trente deux francs mu yore ko ku ñuy woowee Jean Marie Gayagé kon daal foofu la mbir ma juge Le Soleil yéenekaay ñëwaat euh, ci ab euh, kon accord xaatim boo xam ne def nañ ko ci diggante afti ak seen bus ngir daal euh, ñu mën a jot lu toll ci six cent bus ñëwaat nañ itam ci li ñuy woowee feuille divernage ak benn gëstu bu ñuy def ci dëkk bu ñuy wax Bédik nekk fële ca massif yu Kédougou ñu ne nag ab dëkk la boo xam ne sax fa ñuy wax. Anjel ku fa dem nag di nga gis ne cosaan dëgg euh, mu ngi foofu bés bi le jour euh, ñëwaat ci grève de quarante huit bi nga xam ne ñii di contrôleur aérien yi amal nañ ko ak nag jafe-jafe ya nga xam ne kon indi na ko ci wàllum demak ak dikk yu roppalaan yi ñu ne nag euh, loolu tax na kon ba ñu bëri ca ñoom sax dàq nañ leen ñi ñu suspendre leen ñëwaat nañ itam ci ab euh, mbir bu ñuy woowee Suisse secret ak kii di Moustapha Niass ak Baba Diaw bu itok dañ leen tudd nag euh, ci euh, wàllum corruption jëm ci pétrole le quotidien yéen kaay ñëwaat ba léegi ci grève bi nga xam ne contrôleur aérien yi ñu ngi koy amal ñu ne loolu nag indi na ay lëndëm lëndëm ci lii di jaww ji ñu ne nag euh, tax na sax ba mouvement ba suspendre nañ ko euh, te it ministre des transports aériens euh, mu nga leen di artu ñëwaat nañ itam ci ab waxtaan boo xam ne séq nañ ko ak kii di Kalidou Koulibaly moom nag wax na ay njëlbeenam fële ca première ligue wante itam objectif yi nga xam ne moom ak ñooñam am nañ ko pour lii di mondial bi sunu làmb ñëwaat ci mbër yii di Zarko fils de Balla Ada fas ak moor kankan ñu xool nag ñoom ñooy ñeenti mbër yi gën a ràññeeku yi gën a xarañ ci lii di saison bi ñu génn ñu nañ itam ci combat bu Papa Sow sita bi ñu war a amal le 6 novembre bi ñu dëgmal ñu ne nag euh, mardi bii ñu jëm moom mooy première face à face bi laas yéene kaay fësal seen xët wu njëkk imaam El Hadj Moustapha Guèye mi génn àdduna ñoom nag ñëwaat nañ ci bësam yu mujj ci kaw suuf moom moom li nga xam ne sax Euh, nee nañ daal euh, koo xam ne la faatu la faatu na waaye kenn dootu ko fàtte ñëwaat nañ itam ci mbirum euh, Mané mbooj ma nga xam ne dafa génn àdduna fële ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba gannaaw ba mu doon wasin ñu ne nag ñi nga xam ne daal ñoom ñooy waa këram ñu ngay joxañ baaraamu tuuma hôpital ba hôpital ba di Vox Pop euh, dañoo ñëw ci seen rubrique boobu ñu woowee en route vers le Mawlud ñuy nag ñu ñuy xamle ak ki nga xam ne moom mooy El Hadji Socé Ndiaye borom doxoba nekkoon mu xaddam bu Serigne Babacar Sy ñëwaat nañ itam ci mbirum euh, Moustapha Niasse ak Baba Diaw ñoo ñuy tudd ci euh, mbirum compte suisse yooyu ñu naan compte secret ñu leen tudd nag ci wàllum corruption jëm ci wàllum pétrole. te yéen kaay yi dañoo ñëwaat ci fal gi ñu fal euh, premier ministre bu bees ak it euh, fi mu nekk nii carte ya na mu doxaate euh, ci biir ñi far ci kon lii di nguur gi loolu nag tax ba ñu sampab laaj ëllëgu Idrissa Seck ci biir Benno Bokk Yaakaar ñowaat nañ itam ci Matar Ba mi nga xam ne jëlee nañ ko ci bopp ministre ministère de sports ñu ne nag la waral daal boobule dàq njiit réew mi dàq ko dikkaat nañ ca. Walf Quotidien ñëwaat ci mbirum cumul de mandat maanaam ñi nga xam ne dañuy am lu ëpp benn ndombal tànk te ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa Yewwi ñu ne woon ne dinañ ko xeex ñu ne nag Yewwi daal dañoo def ab wax waxeet ñëwaat nañ itam ci wàllu dund gi fii ki Sénégal ñu ne ana ana naka la njëg yu cher yi daal euh, tax ba kon euh, ñu bëri ci Sénégal lekkatuñ lekk gu baax. enquête yéen kay ñëwaat eh, ci li nga xam ne moom mooy eh, Moustapha Niass ñu ne fi mu nekk nii nag eh, mu ngay doxal ngir daal xool ana kan moo koy utu ci bopp lii di partem bii di AFP ñëwaat nañ itam ci ab réunion boo xam ne am na démb ci diggante ki nga xam ne moom mooy ministre de l'intérieur ak ay responsable yi Tivaouane ngir waxtaan jëmale ci gàmmu gi. les échos yéenekaay dañoo ñëw ci ab sénégalais boo xam ne ñu ne dafa nekk fële ca Amérique di wuyoo Alassane Sall ñu ne moom nag dafa porte plainte nguuru Sénégal te sax di leen laaj lu toll ci quatorze milliards de francs CFA ñu ne li ko waral nag dafa am ab ab manifestation opposition bu amoon foofule euh, mu bokk ca mu ne mu ne nag dañ ko ca méttitaloon ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy affectation bu ancien procureur de la république di Serigne Bassirou Gueye fële ca Thiès ñu ne nag ñoom dañoo njortu ne relation yi am ak Mimi bokk na ci li waral boobule affectation l'évidence quotidien dañoo ñëw ci mbirum accord de visa Sénégal Canada yooyu nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee ñu ne nag ministère des affaires étrangères nee na loolu fake news la maanaam du dëgg ñëwaat nañ itam ci Mariama Sarr ak yàgg bi nga xam ne kon eh, yàgg na ko ci lii di nguurug eh, Sénégal ñu ne nag ana lan moo tax Mariama Sarr Macky bëgg ko ba di ko bàyyi ci nguur gi eh, te sax moom local yi dañ ko dóoroon lii législative itam dañ ko dóoroon stade yéen kay ñëwaat ci dellu si Krépin jaata ci équipe nationale gannaaw bi nga xam ne toog na fukki weer yoo xam ne football équipe nationale ndax feebaroon ñëwaat nañ itam ci match amical bu am ci diggante gaynde yi U23 yi yu Sénégal ak yu Maroc ñoom nag ñu ne dóor nañ dóor yu métti seen naataango yu Maroc tribune yéenekaay ñëwaat ci mbir moomu xew ca tuuba ndaw soosu ñàkk bakkanam gannaaw bi mu doon am doom euh, ñu ne nag euh, ñi nga xam ne daal ñooy famille ba ñu ngay accuser hôpital ba hôpital ba ñu ngay euh, weddi ñëwaat nañ itam ci mbirum Moustapha Niass ak euh, Baba Diaw itoog ci loolu ñuy woowee Suisse euh, secret ñu ne nag ñoom tudd nañ leen ci ab mbirum corruption boo xam ne daal ay milliards yu bëri kon lañ cay tudd ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy nguurug Macky Sall ñu ne ganaaw bi nga xamee ne nag fexeel nañ kii di Khalifa Sall ak Karim Wade ñu ne ndax dinañ mën a fexeel Ousmane Sonko. kii di Barthélemy Diaz direct news ñëwaat di Matar Ba ak euh, jóge bi nga xam ne jóge na ko ci bopp ministre des sports ñu ne nag moom nekk na koo xam ne daal ku xareñoon la euh, te it euh, demam sax bett na te métti itam ñu bari l'info yéen kay ñoom it dikkaat ci nguurug Macky Sall ñu ne nag ana daal naka la moom Macky Sall di fexele ñi nga xam ne ñoom ñooy ay opposant euh, ba ñu am daal ay jafe-jafe ci wàllum justice ba sax kenn dootu leen mën a votel te it ñoom duñu mën a voté ñëwaat nañ itam ci mbirum scandale ak corruption ñeel réewum euh, Nigéria loolu ñuy woowee secret suisse ñu ne nag ñu tudd ca fukki personnalité yoo xam ne Moustapha Niass ak Baba Diaw bokk nañ ca l'observateur dañoo ñëw ci débordement bu fleuve Sénégal maanaam fees boo xam ne lii di dexu Sénégal gi da ko fees ba sax euh, génn laal ay tool lu toll ci quatre vingt ci ceeb fi mu nekk nii ndox ya nangu na ko wante itam quatre cent cinquante tonnes bu padi boo xam ne yàqu na ñëwaat nañ itam euh, ci euh, li nga xam ne moom mooy soldat ivoirien yooyu nga xam ne dañ leen jàpp fële ca Mali ak nag jéego ya nga xam ne CEDEAO ñu ngi ko cay dox ba sax amal ca session extraordinaire ba léegi l'observateur ñëwaat nañ ci assemblée nationale ak 165 députés yu 13e législature ya nguur gi jébbal na leen véhicule de fonction ya nga xam ne yoroon nañ ko wante itam quatorzième législature yi député yi bees yi ak nag ana naka la ñuy amee li nga xam ne moom mooy seeni euh, véhicule de fonction le mandat yéen kaay lañ koy jeexale ñoom nag nee nañ fu mu nekk nii gannaaw bi nga xamee ne nag euh, ñi fare ci euh, nguur gi seddale nañ li nga xam ne moom mooy poste ya ya ñu am ca assemblée ñu ne nag ab xëccoo bu metti ak bu xeexoo ñu ngi koy xaar daal mu am ci lii di biir Benno Bokk Yaakaar loolu ñeen doon ci li gën a fës ci xëtu yéen yi leen jox daje ëllëg jaa jëf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 32 wala 77 562 24 24.